Cheikh Ibrahim Jalaluddin ngi may wax ne ñetti minute moo ñu dese tey gis nga waxtaan bi fa ma sha allah ni mu tëdde ñepp bekk nañu ñu ngi jot message yi ba bitim rew fa tabarakallah ñu ngi koy rafetlu ñom itam ñu ngi leen di ñaanal yalla yokku leen degeural ci daraja yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ne xam na ne ak wat dafa international motax ñu ne cheikh al islam hal huwa yani moy la solution tay bo ñu doon teunkel cheikh al islam رضي الله تعالى عنه لمو بغل نداو سي ادنا اك الاخره لان غا نيو واخ سما خيل ديمنا سي ايا با شيخ علي جوندنكو لغي فاستبقوا الخيرات نديكنتلن سي لو باخ لو ييو اك لولن دي ديفارال في اك فلي شيخ جلال الدين الحمد لله لاج بوب داما كاي تونتو سي ايا بي الله واخني وقفوهم انهم مسؤولون الله اكبر تخاول لن دنج لنا ورا لاج لن لن ورا لاج موي ليغا خامل ني نكو دون ديف ديمب سيدنا علي دابا واخا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها اسكي فان بناها بخير طاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها اسكي الاخره كير غي فيك موي بين دون تبخ بوكو تبخيك يو غا فيو بو فا تبخيك سفان غا فسفان فا سفان دغ لا بور باي سلاتي بوب بور مو ديف كو موي مو فورسي لين يو باخي وايي فورسي با دندي سي mu forcé len lu bax yi mi ngi ko defé ci ne wal tadhkuru llaha dawaaman waxmadu fa inna al alqawli anni ahmadu da ngeen tuddu yàlla ndax teranga yu nek ci tuddu yàlla tadhkuru llaha dhikran kathiran na ngeen sant yàlla ndax yàlla mi ngi aj ay mayam ci sant ndax wala in shakartum la azidannakum bu ngeen sante rek mo yokk leen moo tax sufyan kay di wax ne ashukru قيد الموجود وصيد المفقود سنت يالا موي تي ورسك بفي نيك واي موي اندي ورسك بفي نيكوت ما شاء الله سنت لين يالا تود لين كو واي جانغ لين خام لين الحمد لله نيارل بي موي تي غاتال رك مو فخه با لو خامل جيكو بو بون لا بون تي نيك واخنا اي دومم با ني جانغ تي قاهره تي ليتر بو سيو بو خامل خالي يب نينكو نينكو يور ديكو لير مو واخ لين ولا تدنسوا أعراضكم بأي شينة أو عار أو شنار ولا سيما عار يقود إلى جهنم وبئس المصير غور قولوا لين بقولين تلمل سندر تي بن أيب ولا لنياو روتنا أيب ولا لنياو بوا خمانتاني دفاي أمت بروم جميعكو سفرة موين جيكو يوسوفي يب يالا بوكوكو جيكو يوسوفي يب na ngeen ko bàyyi mu tegal leen ci ne bu ngeen ni lekk góorgóorlu leen ngeen lekk lu baax macha allah bu ngeen ni jiital wa qaddimu xubbal islaami jiital leen mbëggeel lislaam ku jiital mbëggeel lislaam mooy ne dugg na ci abraar yi te inna al abraara la fii naimin ne leen jiital leen lislaam waaye jiital leen bëgg seen réew bii di Sénégal ndax xubbul watani min al imaani macha allah maa ngi leen di wax ne ولا تدخنوا سيجارة أبدا بل موسى تخ سيجارت فإنه خبيث اسما وذاتا وصفة وتبغضه وتبغضه الملائكة بل موسى تخ بب خيتي درك بوين دي جفن ديكو بولين كو جفن نختور ورفت ملو كان ورفت آه، جمو جرفت ملائكة بن نانكو تلول نيكو خم وخ نانكو بوين اوت اي خريط اوت لين اي خريط يباخ باخ واحذروا اقران السوء رجالا ولا سيما نساء بوين اوت اي خريط ut leen ay xarit yoo xam ay xarit yu baax moytu leen xarit bu góor bu bon rawatina xarit bu jigéen bu bon ndax nit no say xarit nuñ mel rek nu mel noonu ngay mel moo tax te ibnu ataillah waxoon na ne laa tasxab illa man yunhiduka xaaluhu wa yadulluka ala allahi maqaaluhu booy ànd ak ànd ak koo xamante ne xaalaam dafay buural sa xaal waaye ay waxam dafay yëkkati sa itte tegtalal la yàlla moolaa Cheikh Ibrahima ci lii la tënk ndaw nii la war a jaar pour te am texe àddina am texe alaxira am na solo Cheikh Jalaluddin euh ba ngi ñëw ci yow Cheikh Aline kàddu gu mujj gi lan lay doon. alhamdullilah ñi ngi sante yàlla. hmm di ñaanal kilifa dëkk bi yeb hmm yàlla may leen wér. amin yokk leen xewal yokk leen teranga amin amin yàlla degeural leen bañ mëna continuer. yoni Mawlana Cheikh Ibrahim. radiyallahu anhu xam-xam. amin ak xam-xam ak jub. amin mo koy continuer. di wax ne sama baye daf ma wax ne. maam xalifa euh, euh, alaaji baraam dafa mus a dajeeg moom ci jamono yii mm. te fekk na mu war a jàngi moom ay xaritam mm. mu ne ko fu ngeen jëm ma defee woon ne ñu ne ko dañuy jàngeegu leen mu ne dañuy xaar gàmm mu ne ma defee woon ne fi mu ne lépp lu ngeen waroon a wax rek keer ngeen ko waroon a waxee est que mu ne leen damaa nay ci yéen mm. ñàkk jàng macha ndax doomi sëriñ bu jàngul ëllëg dana bugg a wax buñ ko xañee micro mu mer buñ ko joxee mu wax toj toj kon ñun ndaw ñëpp nañ buuralaa suñu utee jéem a jàng gan yëpp yàlla indi leen ci jàmm ñu delluwaat ci jàmm ku nekk yàlla na fi gis luy buural xaalam ak luy yëkkati maqaamaam ak lu koy tegtal yàlla di leen ñaanal yéen ñëpp yàlla méngoo leen ci zaahir ci baatin yàlla mën na ko yàlla defal jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amin Cheikh Ali kàddu gu mujj gi lan lay doon kàddu gu mujj